dal na ak jàmm mbokk yi safoo seen seen Jahawli Sénégal sagara ngay waaj a xeeñ ci diggante goney Faramareen bekk Pape Diouf leaderu génération consciente mbirum baram mundi bu dox seen diggante Wally Seck daal di ci indi gis-gisam wala bokk ñu ni li nga xamante ni si ni moom lay tontu Wally Seck moom xamle na ni polémique bi nga xamante ni si ni moom moo am ci mbir moomee ginnaaw bu Pape Diouf leaderu génération consciente bi déposé ab plainte doomu coon Ballago Seck bi moom xamle na ni amul benn yoon bi mu mës a am problème bi ni mel waaye itam rawatina ci ñeel wàllum dat moom Waly Balago Seck xamle na ni mbir yi ak ñàkk déggoo kese la li ni mel nag ñenn ñi jàpp ne am na lu bari li des ci ginnaawam ndax tey wax ni ñàkk déggoo kese la moo dox ci diggante ak Pape juuf ci lu ñeel tëgg gi mu waroon a tëgg ca Baar Mundi xel munu ko nangu ñenn ñi sax dem nañ ba njort ni am na lu lalu ci ginnaaw lu waral ñàkk déggu gile Wally Ballago sekk dem na sax àddu ngir mbir yi gën a leer ci diggante mag Pape Diouf moom faramaaren bi moo ngi xamle ni boîte bi si jëmm boppam di mun di ñoom ñoo publier ci seen page ne moom moo war a tëgg ci boîte boobee. mu ci yokk di xamle ni ginnaaw sax ba coow li jibee mu polémique yi bëri lool moom dafa dem utali feneen uti feneen daal di fay tëggi ginnaaw gi nag Pape Diouf bu génération consciente moom dem porté ji plainte yóbbu mbir yi fa ma xam ne doone benn li ci muntam nag Faramareen bii di Wally Seck mbëbétam mooy fexe mbir mi tëdd ci suuf ndaxte moom xamle na ni benn yoon amul kenn ki ko mun a porte plainte mbir mi ni mel tëggiwu fa defu fa dara loo xamante ne si ni mën na gàkkal événement wu Pape juuf bi mu ci yokk nag di o sénégalais yi ñu dalal seen xel te apaisé dox ci jàmm ci digganteem ak Pape Diouf Yeah.